awuz billahi mina seytaan rajim tey jii di alxames wirdu bis biñ jëlewoon ci Cheikh Sidil Muxtaar allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim junni yoon alxames bu jot allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim nga def ko junni yoon alxames bu jot ñuy ñaanal Cheikh Sidil Muxtaar yal na yàlla dooli leeram yéen ñu ko def yal na yàlla wattu leen sàmm leen te nangu ko allahuma amin jërë ngeen jëf